foo xam frontière euh, gare aéroport fop ci biir dëkk bi Seydou du jën na foofu taxaw bu am solo di xeex di di di xeex mbas mi ba ba léegi mbass la ngi ni euh, ñun mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko bayyi parce que baisse ñu euh, les bras parce que dañu continuer ni ni ni di xeex mbass mi ci bir kër yi. ma ngi ñaan le président de la république son excellence Macky Sall ma ngi ñaan également le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sar. maa ngi ñaan également le chef service national de l'hygiène pour ñu dimbali ñu ubbi concours bi parce que soo xayma service d'hygiène national de l'hygiène li ñu nekk ci élément moo ci 500 éléments c'est insuffisant président de la république def na effort bu rëy a rëy parce que euh, chef chef d'état yi fi nekk monsieur jaar yëpp li Macky Sall daf kantefu ko ñu ngi koy remercier bu baax a baax a